dañuy jàng julli jant bu jàpp moo xam ko tukki la walla koo xam ne tukkiwul dégg nga mu ne faslun lii luy tàqale wax la sunna yoona leef na yoona leef na borom xalil nag gars yi ne déggul grammaire mais ñoo ñoo déggul grammaire ñi ko wax ñoo déggul grammaire sunna yoona leef na ana naibu fayal ba rakaataani ñaar rakka ci bindu ñaareel ba ñaar sirran ci yelu gana xanaa ku ne ci dëkk bu mag la mu ne wa in li amoo diin di mat ci fa nga tàmbale woon donte ko jug dëkku kenn la xam luy amoo diin mooy li ñu wax ci jamono mag ña ñu pet samp ay bant ba ay caq nga teg ci ay geer mooy néegu pet muy xamoo diir naa ko néegi pet muy li xamoo diir nga xam ne dëkk ba rëyul donte nga xam ne dëkk ba dañu nekk dëkk yoo xam dëkk yu ndaw lañ si néeg ya rafetul ñu ko da badawi yu rek ci arab mooy dëkk àll yi badawi yu dégg nga boobu la moo xewoon samp ay jën ñu ko wax jën samp ay jën teg ci jànk bi fu musaafirin wala nekk kuy tukki sax bu ñu la amoo diin fu musaafirin donte ko dafa nekk koo xam ne dëkkaal la dëkk wala muy tukki te lam yajid da tarul sayruhu doxam ba yoon na leen ñaar ngir lan li kuso fi samsi ngir jàppug jant ñun lañ ko waxee ñun jàppug jant ngir jàppug jant rakkaataane baa ngi noonu tuddoon nañ ko siran waxoon nañ ko waaye ñaar rakk yi nag dafa wuuteeg ñaar rakk yi ñu xamoon mu ne bi siyaadati qiyaamee ñi ci yokkuteeg ñaari taxawaay wurkoo ayni ak ñaari rukkoo kon rakk bu nekk da nga taxaw ñaari yoon rukkoo ñaari yoon mu tekk foofu nag dem ci jàpp weewu jàpp dem ci weeru jàpp ne war kaataani bu tey sunna leef na ñaar rakka rakkaataani ñaar rakka ngir li xusa fi li xusa fi xamarin ngir muurug weer wa jàpp weer wa mu ne weeru jàpp moom kan waa kat kom naa naafili rek la jëxëran da koy biral bi la jëmeen ci loolu boole nag ku nekk sa kër ku nekk ak sa néeg bu dee weeru jàpp la ku nekk sa néeg bi la jëmeen xaw legi nak xam nga xel muy daj lan motax tax biiru jàppee nag ñëpp dañ ci jakk yi di sikar au ñu la dañu sikar te liñ jàng nii mooy rakkataani rakkataani la wax ah muy noonu kon naa fi li jaran bi la jamee kon sunna bi moy julli bu yoru jappé way xam nga xam-xam bu di and xam jamono ma ngi dañoo bu ñu ko nek na dem ci nag la sama classe gi dañuy nelaw ba set dara duñ ko def nelaw rek bët set te buñ buñ siikaree ñëpp génn dem ci jàkkee ñu ne ko nañ siikar buñ siikaree ko dem jàkkee ba neexee julli ñeent rakka julli juróom benn rakka dem ci géew ba siikar def nga yëpp looloo ko sabab nag waaye sunna bi moom mooy bilaa jameen kon loolu mooy weer woo xam ni dafa jàpp ne ko ñuk nak demat jant bu japp ba dégg nga ne na wonu di ba bu japp bu jant la sopp nañ jullee ko bi ñu haji di jakk ni ji dégg nga wa qiraatul baqarati ak jang baqara ko nga lu ñaar rakka rak bu di ñaar taxaway ak ñaaru ko mu ne wo nga jang baqara summa mawaliyatiha top yakum fil qiyamati kon ak bu njëkk bi jàngal fatiha jàng baqara ci taxaw taxaw bu njëkk ba ci taxaw bu njëkk ba nga siggiwaat bu su jooti de boo ko bu su jooti nga jàng fatiha jàng Al Imran ru ko rukkowaat do su jooti muy ben rakka dina ko wax rakku ñaaral bi nga jàng fatiha jàng nisaa ba mu jeex nga rukkoo si gite ba sujjooti jàng faate jàng maayida dem sujjooti muy ñaar rakkaa ñeenti rukkoo ñeenti taxawaay waasun ak waalaate ba daa gannaaw julli bu pare léegi mooy la nag na nga jàng fa faate jàng bàqara ci taxawaay bu njëkk ba ci rakk bu njëkk ba mu ne wa rakkaa rukkoo na kal rukkoo bu yàggee ni njàng ma kon na nga jàng bàqara ci taxawaay bu njëkk ba rukul yagge ni kuy jàng bàqara ci taxawaay bu njëkk ba dégg wax bi siggi jàng fatiha jàng ale imran rukul yàggee ni kuy jàng ale imran siggi doogu da ko sajada ah? na sujjóot ko rukoy ko rukoy rukoy ya ne yagge ni taxawaay yi sujjóot yagge ni rukoy waktu, nga waxtu waxtu wa kal iidi comme jullik tabaski la waxtu waxna dagana dagan na naafila rek kon waaw léegi nak bu de nga xamni man dama ñew fekk imam bi rak bu njëkk bi jang na fatiha jang baqara rukul ya yàgg surtu baqara sigi jang fatiha jang al imran rukkoo bay waji sigi ma japp ci sumu om yi ndax li fatiha ko la awmako lay jangale nga tuddal ko na dab rakaatu ba bur koy bu ñaareel ba nag ci bu ñaareel ba bur bu ñaareel ba nga mooy farata ba nag mooy farata ba mooy farata ba mhm. rukkoo njëkk bi moom sunna la bu ñaareel mooy farata nee wala tukarraru def ko bamtu nak def nañ ko deñul amul juliat wala tukarraru de ko bamtu mukk buñ paree buñ julé ba pare té jant bi japp bi deñul amul bamtu ko légui nak bu dé nga xamni dañ dem ba ci biir rek jant bu na xoñeet leer na ñi ni ñuy def mu ne wa ñun jallat ndem hunñu ko na jant ba fi asnaiha ci digg julli ga fa fii itmaamiha nekk di ci mottali julli ga comme ni ko waroon yàggalee nekk nekk nekk mottali julli ka fili comme naafila rek wala dañ koy continuer ma dal ko ah xawlaani xawlaani amaana bu ne dañ dem bu commencé rek bëgg julli jant bi jàpp bi dañ jarul julleeti jarul julleeti bu nee bu ci biir nag mu dañ te pareeguñ ndax dañ koy mottali ci ko comme na mu yàggee woon wala dañ ko def comme naafila xawlaani xam nga li na yag bu mu doon lool waaw bu mu bu mu doon ko naafila yi nag lay demee dégg mu ne masal bi ngay jàng ne wa quddima na fardun farata boo xam ne xiif ragaleef na fawaatuwoo ak fatam ñene bepp ñaari mbir tese ci yow masal bi ne nga bàyyi xel bepp ñaari mbir tese ci yow nga ragal ne bii bu mu yéexee mu faat xam nga li mu jàngale nii muy fiqu la mais day dugal lépp nag lépp lu dagan ci yow rek nga xam ne si na ko ñaar bi daje nañ ci yow nga xam ne bii bu mu yéexee mu faat kon da nga njëkkee bii dina am faat njëkkee ko dégg bi masalan daf ne jant bi jàpp na jant bi jàpp na tey ñu war dem julli gi imaam ne noonu yaa ngi taxaw nit yi kanam noonu yaa ngi taxaw te bu demee julli ji noonu yi faagagal dëkk bi dégg bi bëgg jant bi moo jàpp imaam ne noonu yaa ngi taxaw ci gannaaw dëkk bi bu demee julli ji nooy dugg dëkk bi yàq dëkk bi fa rey gune jigéen ñi ñu ne ah ne beneen bi mooy am na ku faatu bu ñu yéexee mu yokk mu yàq bu ñu mu ne ah ne te jant bi jàpp na ñu ne ah ne te kat jamonoy baaw naan la ndox amul ñeent yi war nañ ko def war nañ défense noon yi war nañ jullee niw bi war nañ julli ngir jant bi jàpp war nañ julli ngir julli julli ñaan dox julli baaw naan ñeent yi war nañ ci benn bis bi ni ñuy def nag islam ne kon li ragal mu mu faat mooy seen kaw ba xam jàmm bu pare ba xamee jàmm noon yi dem suul ñëw ba doog ñëw ci ci jant bi ndem jant ndem une heure jotul nag motax mu ne kon wala de euh suma kusufun wala de dafa tepp non non ya tepp ñu bu bëgg yaq bi suma ma ku soofun ba dégg wax bi juroom la sax juroom la xa xa bindal xaaf xa ja ku eh li xa ja ku en li mooy tënk bi xa ja ku en li xa ja ku en li muy xitaal xay muy xitaal jim bi janaasa ka mooy kusuuf xëy na eet lam bi mooy listiqa bind nga foofu dégg bind kon nag jeex na <laughs> xitaal bi bi xa ja ku en li dégg xeex ak noon yi mooy njëkk janaasa bi moo jullee ni bi topp ci ku soofu sam ci doog a ñëw jullee gi mooy eet bi doog a ñëw ñu ne kon nag baa naan bi nañ ko bàyyi bu suba nañ bàyyi bu suba moo tax su ma ku soofun topp jullee jullee jant kii bi jant bu jàpp bi su ma eedin topp julli korité wala tabaski boo xam ne yéexeem nag al istiqa ñaan ndox ga mooy naan ga li mu àq nañu beneen bis